jàll yaakaar naa ne loolu mooy solution bi gën ama ëpp na yées na kooku moom ñun ñi nga xam ne ñoo koy def xam nañu liñ ci war a def amuk jot taxul ñàkk yitte taxul xam nañu liñ ci war a def te incha allahu bu waxtu wa jotee daanu ko def euh, amaa nag di ci wax bari naag bariwul ak loolu lépp yaakaar naa ne ci bokk na day bokk ci ñàkk maandu day bokk ci ñàkk maandu bu ko defee daal ñu ngi leen di sàkku rek ku bëgg seetaan mu seetaan ku bëggul a seetaan am nga leneen loo defi feneen wala am nga yeneeni vidéo yoo bëgg a seetaan ñun ñu nekk ci li ñu war a nekk bu ko defee kàddu gi ñuy yëkkati tey ci vidéo yu ñu gis la euh, benn waay boo xam ne bii yaakaar naa ne capitaine la woon ci armée ñu koy tuddee capitaine Mamadou Dieye defe naa su ma ci juumee ñu jëggal ma ko bi ma ko gisee nag ci émission bi ñu ko invité wax dëgg yàlla kanam gi nuru na ma ko waaye maa ngi doon xel ñaar bi ma déggee mu wax waxaat ma xool profil bi laa ne ah mel na na mooma waaye bi ma déggee wax yi muy wax nag ma ne kon li ma doon jort ci ay jamono dafa mel na loolu moom sixième sens la woon bi mu fi amee ay jafe-jafe ak démission mag ya ca aju yépp ma doon topp mbiram di ko xool ma gis ay wax yu mu wax laa tàmbali woon a ñaaw njort la ma ca retenir dama delluwaat léegi jël baat yu mu waxoon mu ne c'est quand je me suis compte que leur de ma mission individuelle avait sonné que j'ai commencé à parler à des gens Ma décision a été prise en toute responsabilité et en toute liberté. Ma propre famille, quand je me suis rendu compte qu'elle n'était pas prête à me suivre, j'ai coupé toute forme de communication avec elle et moi. Parce que je sais qu'elle ne fera que m'attarder dans ma mission. ñi ko déggul tubaab mu ni bi ma demee moom ba yëg ni moom am na mission bu mu war a defal boppam individuel mooy mook jubbub boppam rek aw yoon la wu mu xàll xàllu yoonam la wu muy dox moom dong nee na wax na ci ak ay nit waaye lu mu ca décider rek nee na moom jëmmi boppam moo ko décidel boppam nee na kenn dicté ko dara kenn conseillé wu ko dara lépp xelum boppama kon ñamu doon laaj lam leen doon laaj da leen a bëggoon ñu wax ko lu méngoog li mu xalaat waaye jëfewul seeni conseil nee na famille boppam bi mu gisee ne ñoom parewuñu pour topp ko ci li mu ne dafa dagg nee na communication seen diggante musiba naaru laay ngokk foofa laa commencé tiit ci moom ndax nee na moom ba muy dagg digganteem ak famille am dafa xam ni bu ko bu leen toppee dañ koy tardeel ci mission ñaari yoon kon baatu mission ngi noonu mission mooy lan mooy loo xam ne lii dañ la ko ràng yow ci say wagg yaa ko war a def loolee mu doon wax naan mission ak dagg sama digganteeg sama famille moo ñëw tey jii maa ngi koy jégglu kàddu yi bu baax ndof di commencé mat mu ne moom message de l'islam la mooy ku yàlla yónni ci turu lislaam mu yëkkati ay kàddu nag jëme ko nit ñi daal ne lu gamono di dox dox rek da ngay gis ne dañuy gën a lëndëmal xelu nit ñi ci alxuraan su fekkee ne tey dañoo jàpp dafa jàpp ne mission mooy lëndëmal gi ñu lëndëmal xelu nit ñi ci alxuraan xanaa suñu borom buy yable kon moos du ko yabal moom du ko yabal ndax moom ci boppam moo wax ne moom jàngul alxuraan déggul arab xamul kon ni ñuy xamee diiney lislaam xam ko xamul tasfi tafsir xamul luxal arabiya te gis nga loolu képp ku yaakaar ne mën ngaa dégg diine ji dëgg dëgg rafetu déggin te jaaroo ko ci yoon wii danga ci daj loo xam ne lii mburu daju ko ca fuur ba loolu mooy dëgg neewuma kenn mënu koo xame ne ndax am na ñeneen ñoo xam ni géeju nañ ci ci anam yooyu ci gëstu yoo xam ne yii gëstu yu tegu ci yoon waaye yow xamoo rudiment yi li gën a tuuti ABC yi nga ne yàlla yow la yabal pour lëndëm lëndëm yi nit ñi lëndëmal yow nga leeral ko te yow xamoo ci alxuraan dara mu indi benn cercle bu mu rëdd nga xam ndeysaan cercle bi ci biir xel mi la ne dal di ne ci biir cercle bi ci la chrétien juif athée musulman ñëpp ci biir la ñu ne loolu kay bindee fi yàlla yi ci biir kawnu yàlla bi la ñu ne ñoom ñëpp sur terre bi xam naa nag ndeysaan cercle boobu euh, terre la terre qui est ronde relativement moom la doon wax xëy na waaye bokkul mu daal di xàbbar ñi ku daal ne kon kii jaamu garab ak kii jaamu di julli ak keneen ak keneen ñépp a am na ñuy wax lu nuroog noolu te dégguñu wax ji waxdatul wujud mooy lépp yàlla la indi na sax benn aaya alquran benn bayt an nafu wa durru min arrahman bu jële ko ci waxi sëñ Tuubaa waaye ku déggul arab indi benn bayt war ngaa war ngaa yey sa bopp ba nga déggul arab nga waroon a téye sa njàmbur ci bayit boo xam ni bii arab lañ ko bind ndokk ba nga ko firee firee bu dëng dëng dëng dëng bu yenoo di maanaa li am daal mooy nous avons affaire à une personne malade su fekkee ne am nay mbokk te mbokk yi mën a lëti ko dara ndax nee na moom daggoon na pont yi yaakaar naa daañu teel a jóg ci boppam parce que daañu jël teel a jóg ci moom parce que ku jar a dimbali la phase bi mu toll phase bu compliqué la su fekkoon ne am na ñu mën ci moom dara dañ koy teel a dimbali yàpp yóbbu ko pikiir ko mu nelaw jox koy doom muy naan ndax xelam dellu si parce que ay problème la am kii moom du problème bokkul ak ñeneen ñi ma xam di woote wilaayaak di woote ay yonent ak ay këfin kii il malaat malaat nag dañ koy dimbali koy dimbali suñu mbokk la euh, réew mi dafa bari ñoo xam ne ñi ndeysaan ñenn ñi affaire shayatin moo leen di dugg ay rabak yu mel noonu di jaxase seen xel ñenn ñi am na ci ñoo xam ne dañuy tox yu bon euh, ba di gis yàlla mu wàcc ci suuf sol grand mbubb façon yooyu yépp nag mi ngi ci biir ak ñoo xam ne ñii ay problème psychologique wala psychique la ñuy am bu fekkee ne teel nañ leen a dimbali rek mën nañoo dellu siwaat waaye bu ñu leen seetaanee la cay mujj du baax bu fekkee ne am na nay mbokk ay nijaay ak i bàjjan ak i frère ak i sœur nañu fexe ba bañ a dagg pont bi moom dagg na parce que dafa bëgg a liibar ci boppam di doxal te fa mu jëm baaxul dañ koy jàpp dimbali ko nañ ko jàpp ci fexe mii wala ma ca des am na soxna bu mu nekkal yaakaar naa soxna soosa day bokk complice ca ña koy dimbali ñu jël ko yóbbu ko foo xam ne fii dañ koy delloo si ci xeetu maanaam dalal xel ko defee ñu yemale kàddu gi foofu ba beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.